ginnaaw ma sant yàlla julli ci yonent bi di ñaanal sama yaay yàlla na fekkee sama njëriñ di ñaana sama pap mu tër yàlla na ko yàlla xaare ajjan ak bépp mbooleem jullit di ñaanal ñu nekk si kaso yi nag tamit yàlla leen yàlla teggil nattu di leen jaale tamit waa sunu mbokk tamit Fallou Isi yàlla na ko yàlla xaare ajjana ak bépp mbooleem jullit bu mu fa fekk ah. di ñaana tam ñu tëri si hôpitaux yi yàlla leen yàlla xaare ajjana yàlla leen yàlla fëgal seen bopp incha allah ba may leen wér baay waa di bég si gars yi yëpp waa di jégal waat waa koñ bu baax a baax a baax ñu ngi jégal bu baax waaw di tuubaat tamit bu wér a wér booy ak dégloo waay kaani kaani jëla ñu mën a dégg alors mbër waaw ñëw fi nga xamante ne ni mooy parcelle gox bi nga dëkk ñu ñëw maanaam gis mbër yi nga xamante ne nii ñoo def au niveau de parcelle ñu ñëw tey li nga xam ne nii mooy sa bis bi alors tey euh, lan nga jàngat sa bis bi en personne yow mi nga xam ne yaay borom bis bi waaw lii am nii nii mooy xale lu moom nga jox ko ko mag lu moom nga jox ko ko wane taalibe loolu laa seeka ñëpp ak sëriñ Touba Mbacke yéeneen ñëpp jàmm tamit lu waaye am yéene nañ ko ko waaw loolu moo tax tamit suñu bés mën a mel ni te lu si kanam mooy dàqu fuuf fuuf lii dara sa lancement la nii rek ak Serigne Touba dafa dara si làmb dara dara waaw di kontaan si ñoom ay daam seen anaconda ndigal bekaay di su ma limee rek juum bëgg naa si ñëpp baay. wane Serigne Touba. mais ñu gis ñu gis ki nga xamante ne ñu gis ki nga xamante ne ni mooy mooy sa adversaire. waaw mu def benn sorte nee na moo la ëpp doole. moo la gën a féete xale. ah leen lu muy xaaral mooy arbitre génn sa diggante ak moom mu def la li mu lay def looy doon si loolu. waaye kooku loolu loolu du daa waxu nii rek waxu signature la waxu mbër la. parce que Serigne Touba Mbacke ñun fii lañ dëkk parcelle suñu naree xalaat ñàkk. wóor na Serigne Touba Mbacke drapeau bi si kaw rek lay nekk bu neexee yàlla suñu borom waaw ñu may kontaagal amul samay morom ku si am chance boobu noonu wóor na Serigne Touba ay ndaanaan rek laa kontaagal maa si gën a tuuti ay ñoom Thiès as banaana gaa yëpp gaan waa jàmbaar di nuyu ko su lato suka père Papa ay assurance waaw su ma jum père Yaram Gueye Franc Goro jàmbaar yëpp waaw maa leen di bu baax a baax lu ma mel ñoom la gannaaw yàlla. mais ñu gis mbooloo bi nga xamante ne ni topp na si ginnaaw. mbooloo bi nga xam ne surtout xale ndaw yi nekk si biir open press bi ñoom ñëpp à chaque fois boo amee combat dañuy bàyyi seen i yite yëpp daal di ànd ak yow hmm. alors lan la ñuy xaar jour combat bi si mobilisation. waaw booy lu leen wax bëriwul la waaw kii nii ñu wane noo ñu dem si dox non à la violence bak Serigne Bamba violence amul sens woowu ñu kenn pour mu def lu ñaaw ñu dañoo woote rek pour bëggee waaw keneen ku ko bëgg a yàq tamit yow loolu sa mbir la quoi waaw di leen bëggee waat ñoom ñëpp gars yëpp bàyyi kenn wootewul ñu pour ñu perturber waaw gars yi xamaa seen yaram moo tàng rek waaw mooy lool noonu maa ngi leen di bëggee ñoom ñëpp sa diggante ki nga xamante ne nii mooy daan seen waaw daam seen kooku mun naa ne sax sama papa la ak Serigne Touba Mbacke yéene ma lépp billaay wallaay taala kooku yoru sa xool comme gaa lañ ne ay xolu mbër kooku yoru xolu mbër ndax lu waaye am yéene na ko barki Serigne baa Mbacke ah, wóor na Serigne Ba xam man ma maa war a dem di ko ne ko kan dem entraînement mais moom heure buy dem barki Serigne Ba loo xamante ne si lu baax la si entraînement dafa mel ne kan dem ak leneen ak leneen di ma conseillé si lépp wóor na Serigne Touba combat ma ne ko aja daam jëlal am na ku ñuy woo ni ma jox ko waaw te lum ñu won la quoi te nit ki tamit kenn moomu kenn loo won nit ki rek loolu lay delloo kooku jàmbaar dañ koy ñaanal rek waaw ne ko mu gën a taqaat daal yi ñun ñu ngi si ginnaawam de moom rek la ñuy xool lu mu def loo lañuy dem def bàyyi Serigne Touba waa ne ko na taqaat daal yi lii làmb la te incha allah rabi bu neexee yàlla le 25 incha allah rabi dam leen koy fay ba wis leen ko incha allah rabi te moom dam incha allah damay daan tuddee ko ko waa di bëggee section féminine bi nag si ginnaaw waa ñooñu aw ma seen fay mooy loolu noonu jaam si yéen grand dédé yow mooy loolu jaam si yow waaw waa Damel ak ñëpp maa ngi leen di bëggee. alors lan ngay wax si seen Smart TV maanaam képp ku bëgg a seetaan open press bi ak euh, télé bi nga xam ne moo teew fii. waaw lancer message. waa muy Smart TV ak OS TV. waaw ñooñu ay yéen yàlla na site bi doon ba doon télé comme ay. ay TFM ak fépp ñu raw loolu lépp incha allahu rabi ñu leen di dégg fu nekk waaw yow mooy lool maa ngi bëggee waat tamit gars yëpp tamit di woo tamit si làmb ji la le 25 jeudi mhm. waa di woo gars yi tamit si no à la violence dama koy répété waat non à la violence mhm. ni ñëw nank dem nank estat sañ sa ba rafet toog waaw ñu toog ma jël ndam ni ñu ñibbisiwaat si si jàmm waaw woowu ñu kenn pour muy jël alalu jàmbur waaw képp kuñ fi jël sa alal tamit te yëguñu ko nii nii ñu ngi jégalu bu baax a baax a baax a baax di baaluwaat ak waa koñ bi bu baax a baax ak Serigne Touba ndax saa suñu wootee daa am nu muy demee te loolu nekkul suñu coobare waaw di leen nekk mooy loolu te ñu ngi nootu waaw bëggee nañ ñëpp Grand Dakar Damel Parcelles Cambérène waa Jaxal bi 21 ñoom amee dof gaa yëpp waa Thiès Thiès su ma limee damay jum 1 ba 26 bëggee naa leen Cambérène Parcelles waaw yéen mooy loolu jaamu si ñëpp gaan moo loo di ko ñaanal ndam